Euh, mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk euh, tuuram ak santam dem mbégte di toog heure bii di waxtaan ak yéen ci xeexu jamono di dalal Ibou Fall di waxtaan yi xamante ne xew na ci semaine bi ci àdduna bi ci dëkk bi ci waxtaan di ko faram-fàccee Ibou Fall ñu ngi lay nuyu. Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yeeg internautes yeeg téléspectateurs yi. <coughs> waa xibaar bi moom euh, yaakaar naa ne presse bi yëpp ñu ci wax depuis te si suba mooy rencontre bi diggante président Diomaye Faye ak kii Karim Wade fële ca Doha. ba journal bi bind ci wane photo bi euh, ñoom ñaari nuwante ñuy naan nag euh, Qatar ñaari fan la président nekk gu moon bi tête ak Wade fils lu ñu waxtaanee waxtaan nañu si attractivité du Sénégal ak tamit waxtaan nañu si mbirum sujet politique yi. bon façon euh, Karim Wade sénégalais donc loolu moom du c'est pas une truc ensuite apparemment position bi mu am Qatar dégg naa mooy su mooy superviser seen fonds de souverain pour l'Afrique pour l'Afrique. Ah, eh. donc euh, wax ak moom jot na surtout que apparemment euh, l'État du Sénégal femmes am ay problèmes pour lever des fonds donc am benn sénégalais buy bu leen mën dimbali ci lever des fonds pour ay investisseurs te Karim a toujours fait ça quand il était à côté de son père wutkatu xaalis la euh, y a pas de raison ah léegi li ñuy mën euh, ils ont fait une intercoalition en c'était au législatif. 14e législature du passé. ah hein? balay passé. waaw xam nga ñoom ñoo def seen intercoalition. ci diggante bi Karim Wadak ak euh, Macky Sall jubóo ah def seen def seen coalition au législatif. bon mais sous élection euh, passée nous avons ci et je trouve que c'est normal et c'est même salutaire Soudain, d'autant plus que les les bailleurs de fonds traditionnels commencent à serrer la vis soudain, nous avons pour am su ou il bi faut même pas hésiter hein. Oui, parce que quotidien Binde, euh, président de compte le fonds souverain arabe pour financer sa vision 2050. ah ce mënul parce que je ne sais pas si on s'en souvient mais Wad, au début de 2000 il avait pris cette option euh, il avait moins euh, parce que nous, jusqu'en jusqu'en 2000 on était très liés à la France au FMI etc. Wad mmh. Wade que mon toj Lolo euh, en essayant d'aller vers la Chine surtout quand nous y Taïwan euh, les partenariats outils avec l'Inde on a les histoires de fourniture de. riz riz les tracteurs. accueillis, mhm, mhm. les financements indiens euh, les BRICS plus généralement donc et les gens disaient que l'influence du FMI et de la France sur WAD avait vachement diminué. Euh, voilà moi je pense que discours bi ñoom Bassirou Diomaye fay ak euh, Ousmane Sonko di tenir la logique c'est effectivement qui se tourne vers la Chine qui se tourne vers euh, des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour financer leur économie. Bon, maintenant. bien le président, la Chine, c'est le premier partenaire économique du Sénégal aujourd'hui. en termes d'investissement. Non, non. Maintenant, le problème, pour moi, euh, c'est très simple. Euh, si on veut parler de souveraineté, c'est surtout sur notre capacité à produire ce que nous consommons qu'il faut compter. Parce ah, que localement, li ñuy defar fi, c'est souveraineté mais changer de changer de bailleur de fonds c'est-à-dire yow lebatoo qui qui ngay euh, je vois pas la différence je vois pas la différence bah sauf que Karim Wade quand même nous avons la capacité de lever des fonds comme nous ko waxee Nous avons koy defal de yu bëri tant est est passé dans sax euh, fallait ca RDC. Hmm? demoon na fa gise ci ci pour nous leen ñu financement est-ce que loolu déjà c'est une quand même une bonne porte pour le Sénégal. non non su ñun option boobu la effectivement Karim Wade c'est c'est vraiment l'idéal mais est-ce que c'est la bonne option pour relancer notre économie moi je crois pas mais il faut nga am xaalis pour lancer économie il faut nga am xaalis di. Ah, man li li waa ji l'huile de coude. waaw hein? waaw liguey deug waaw man loolu la gëna a gëm. waaw mais bala ngay liguey fa nga moyen pour liguey xëy mu nga jaar. fa am moyen commence liguey bi. Alassane. euh man je pense que le premier le premier investissement est le plus important c'est ce que tu as dans dans tes dans tes compétences. Mmh. Hein? Mmh. parce que une bonne idée se vend toujours. Euh, une bonne politique, faut qu'on faut qu'on déploie, elle produit. Mais il faut un moyen pour produire quoi Moi, je, je pense que... Les, les moyens, il faut les trouver. Non, non, les, moyens, il faut les trouver. Mais il faut les trouver par rapport à tes compétences. C'est-à-dire que nous, Si nous sommes wut xaalis rek. Mm. pour après di fay ay salaire ak di wut ay entreprise yu jàmb yuy jóge ci àll bi di fi exécuter marché mais on tourne en rond. Parce que on va quoi faire Enrichir des, entreprises étrangères, mhm. Mhm. Euh, fournir du travail à des étrangers. est-ce que le Sénégal peut faire l'option option les Qatar def Doha def Mme booy ñëw étranger dafa investir te obligé travailler avec un local Les gens investir ils doivent transférer technologie comme la Chine comme le comme Japon DEFCO, comme le DEFCO, pour développer parce qu'il faut au moins que ci technologie bi technologies ki am pour faire ça dépend de ce, statut parce que soudain tu es demandeur. mais am gaz pétrole hein. non mais attends. Euh, tu as du gaz tu as du pétrole. oui mais tu mais tu as du gaz tu as du pétrole tu sais même pas comment euh, le sortir de de sous la mer Quand tu es demandeur. tu as tu as besoin des compétences des gens tu as besoin de de l'argent des gens. Mhm. mais dara. mais aussi mon puisque am ressource ressource première bi ñu soxla Là, ils ont transfert de technologie comme la Chine l'a fait comme l'Inde l'a fait. Alassane yeneen réew yi ñu ko defee. Alassane ah. ñun dañu sàggan waruñoon nous si fii ak l'exploit parce que depuis le temps que nous ngi koy nous waroon nañu préparer loolu sur une génération Les mu on est demandeur. On nañu commencer. On hein? mën commencer léegi. ah ouais, mais on est demandeur man kay li may ragal mooy fii léegi euh, ñuy former génération bi kay man exploiter. Mm. affaire ba jeex xam c'est pas des quantités infinies. Tant mm-hmm. hein? mm-hmm. temps bi ñu nan légui sénégalais ñoko ko mënal seen bopp ñu la ah, affaire bi na tu fais quoi. Ah. non je pense qu'on a on a manqué le premier virage bon maintenant. Et mën rattraper ce virage aussi rien. ah li ci dess fexe daal ba nit ñëw génneel ñu ñu jaay ko am ci tuuti bénéfice dugal ko ci mu ko investir ah waaw mais l'expertise on ne l'a pas eu hein? euh, on ne s'est pas préparé à quoi que ce soit. Ah. liñ ci naroon am ci dañ koy fay ay jàmbur. Parce que si c'était des Sénégalais qui étaient capables d'aller chercher le pétrole au fond du truc, non seulement ce sont des emplois, mais les coûts même ne sont pas les mêmes. mais est-ce que mu xool nañ diaspora sénégalaise mun na am sax expertise am na mun naa am nga am ay sénégalais xamante ne ñoom ñu ngi bitim réew am nañ xam-xam bu rëy mun nañ lu bëri fekk xëy na bu ñu organisé wu dem seeti leen liggéey boobu eh, ñoo ñuy ñëw bitim réew daf xëy na mun nañ ko def moom sénégalais yooyu ah, waaw mais ça c'est une politique xam nga ñun fii nañ waxante dëgg rek mais par exemple dans le BTP ñàkkul ñu am ñoo xam ne liñ fii def yëpp mën nañ ko uh-huh. hmm? mais dañuy dem jëli ay nit ci àll bi parce que man bi ma yëgee keroog dafa am benn. Sénégalais sénégalais yi mën nañ tabax. Mhm. stade. Mhm. mais ñun on est allé chercher des ma ay turc ay chinois. Mhm. ah c'est ça. parce que expertise Sénégal bitim réew am na parce que bi ma yëgee keroog dafa am benn sénégalais bu tudd Pape Cissé ñu bëri Sénégal xamuñu ko. mais il a été le conseiller sécurité pendant deux ans à la Maison Blanche de Barack Obama. Quel ah, kenn xamu ko non mais. Euh, super criminalité super sécurité la léegi. Boubacar Camara mi. waaw. kii influence au Bénin. Ah, ça ne, se, discute pas. Mais les Sénégalais sont partout. Mais est-ce que nous, au Sénégal, on a la volonté de donner du pouvoir aux Sénégalais Parce que les pouvoirs politiques, là, ils sont jaloux de leur mmh. Mmh. pouvoir. Sous des étrangers il y a une légitimité qui fait que son pouvoir s'arrête aux portes de, la nationalité. Sous des Sénégalais, moi, en compétence, il a la légitimité de ça. Ah, vous allez partager le pouvoir. Tandis que quand c'est les étrangers, ils s'estiment se, heureux. Bon, il y a cher le Hein? Mm mais sur les sénégalais ah doo ko def loo lu parce que c'est le fii je pense que nos nos dirigeants là ils préfèrent l'expertise internationale euh, ba pare rek doo xam ñoom li ñuy waxante. mais Karim Wade li que yàlla may xam-xam lu mu relever des fonds lu mu régler bu demee ba Qatar jël ko mu koy liggéeyal. wax dëgg yàlla nag xëy na Sénégal la war na mun woo Karim war na liggéeyal Sénégal xam nga ñun dañuy fontu moom bi mu fi ñëwee bi mu fi njëkk a ñëw ci benn banque la nekkoon boo xam ne sa foog naa sax noonu la xamante euh, Qatar yi mhm. banque yooyu doon gérer ay fonds souverains yooyu foog naa noonu la njëkk xam xam mhm. voilà à mhm. mu ñëw fi temps bi mu nekkee ci wetu papam euh, tam dem rek lañ ko deful. Hum, hum. Hum? Eh, comment veux-tu après que les gens veuillent travailler pour leur pays bim fi nekké ni ni. ni à part tam dem. Euh, te sax est-ce que tamuñ ko dëmm sax lu ne yek nañ ko wooy dafa am avion privé qui qui il nous coûte cher ak yooyu lu ne ñu wax ko ay eh, di koy le ministère de xawma la nak non ñun ñoy dakk suñu doom yi. Ah parce que même les sax du mu nous rencontrer président Diomaye am na ñuy xamante ne ci réseaux sociaux ñu koy xarab. wala ñu ko recevoir ah, wala ñu ko gis lan moo tax ñu koy recevoir la motax ñu wax ak mom xam nga lan moy deug hmm. la classe politique là elle nous a vendu la haine. Ouais. quand tu es aux affaires l'opposition elle elle vend la haine dinañ la moom bim, mu fii bi ko fi téye foog 700 milliards lañ ko ji. hein hmm. c'est comme ça qu'on fonctionne. qui voudra après tok ci deuk bi naan da nga fiy liggéey su loo fi def soo fi amee oto boo xam ne sax euh, nuróol ak yeneen yi ñu ne ki sàcc la. <coughs> mais lan moo tax ñu développe mentalité boobu. mentalité de c'est les pauvres de de substitution de partout. boo solee tubéy la mentalité de pauvre bu rafet sax ñu accuser nga am nga tubéy bu rafet. c'est la mentalité de pauvre xam nga nit ñi euh, il tire par le bas yow loo amul au lieu nga uti ko da ngay ne bu ko kenn am <coughs> c'est ça c'est la mentalité de pauvre mënuloo mënuloo dem te ku dem nga xooñooñ et pourtant président mu ngi wax euh, euh, vision mooy une Afrique décomplexée un Sénégal décomplexé. xam nga waa ji demoon di julli ci benn dëkk kàbbar daa xelam yedd ko mu mu jël dafa jël saagam teg kàbbar euh, xelam yedd ko mu jël saag bi teg ci kanamam waa dëkk bi naan ko fii de sàcc amu fi mu naan leen lu fi indi tur bi. ah loo bëgg foofu. luy waxi complexe décomplexé complexe man xamul lu fi indi wax ji. pour montrer que l'Afrique peut être là où tout le monde est. non non non on n'a pas besoin de ça toi aussi. tu es un chef d'État hein élu dans une démocratie de quoi encore as-tu besoin à part prendre des décisions qui concernent ton projet politique mais nous, on on n'a pas besoin de la souveraineté mais ça c'est un discours d'abord inutile parce que dagay wax ci yo xamné amul kenn xam lan am jëriñ naka def développer Sénégal. mais est-ce que est-ce que pas un discours pour déconstruire un discours qui a été mis en place. par d'autres gens. Alassane Alassane. Hum? Euh, wax mhm. chef d'État bi wax sax ma mais c'est même pas un bon développement lay ay complexe na complexe au oui nous sommes souverains ak yow am nga drapeau am nga indépendance depuis 1960 tu n'as aucun problème de souveraineté. tu n'as aucun boo amee développé discours que tu n'es pas souverain. ni dugg ak ça tamit Ça wax ni non il faut démontrer le mouvement en marchant tu n'as pas besoin de le dire tu le fais c'est tout tu n'as pas besoin man discours mooy comme ay na fi France jógeek yooyu mais demaguñu parce que seen oto la ñuy dawal seen ay fetal ak yooyu la ñuy la suñu soldats yi di yor ah. Mhm. kon France demul soo fi bëggee ne nag on est souverain ak yooyu te yow mënoo defar sax pousso mais c'est que tu tu te racontes ta vie c'est tout. waaw mais France kat bu même bu sur le plan militaire xëy na mën nañ dem mais sur le plan satellitaire Sénégal Montpellier la defar satellite am boobu. Ah, surveillance territoire moo tax mën na la kay kenn demul non. ils partent physiquement mais ils restent technologiquement. mais bien sûr leur leur savoir-faire les entreprises françaises pratiquement ont fini. fini. non non L'Afrique nga ay non Afrique décomplexée euh, pour moi c'est parler du sexe des anges quels sont nos soucis immédiats et comment les régler comment faire pour que les Sénégalais se remettent au travail et n'aient besoin de l'argent de personne moi, moi, je dis mais loolu il faut il faut il faut il faut euh, nga li nga l'épargne interne. ils sont élus pour ça. ni Il génne seen xaalis xam ne ngi gafa yi dugal ci fi mu euh, les gens cachent ce qu'ils ont. Il seen Il faut. dugal ci xaalis dugal ak. Ah, faut. doo ko Il faut. ko Il dañuy génne xaalis bi teg ko il ah fii soo fi Il xaalis ñu ñu la ci bi ah. ah Samuel Sarr ngi wala du fii ku fi ku fi am les gens dès le début mars dafa passé hein da ngay gis sur les réseaux sociaux ñi filmer ay keur nan ki diw la la comment veux-tu après que les gens sortent leur argent pour investir. est-ce que loolu bol bok na ci li xamante ne jafe am na rew mi xaalis bi circuler ah nu muy circuler ko nak daan na da nga yore. ah yow ñu lay ñu lay tam de mu ngay soccoo tànku liir loolu foo non les gens vont dañuy lem sen loxo tok di xaar wóorul.

di won mhm, mhm. homme d'affaires qui yoy qu'ils peuvent compter sur lui mais fi mu nek les hommes d'affaires là ils ont peur des autorités ah, et eh. tu vas au Qatar c'est des fins d'investissement tu as peut-être 100 Sénégalais qui ont des projets et qui cherchent un investissement tu leen un ci Tu bi un ci avion bi yóbbu présenter leen Karim Wade ne leen non c'est ça notre problème est-ce que loolu prospection rek la ah non non non business ils ont fait 40 ans de business. Hein? tu prospection on va rencontrer des investisseurs ay fonds qatareek yooyu. kan moo fi am projet kan moo négocier On ko Karim Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, euh, je suis désolé, mais il est président depuis combien de temps Huit mois. Huit mois. Ah mhm. c'est ça le problème. Il n'en a pas l'expérience, mais dans ce pays-là, il y a des gens qui ont cette expérience, qui ont fait des voyages, des, missions d'inspection, de, ils sont allés négocier des, euh, des investissements. Parce que c'est soutenir l'initiative, mon

Hein? Mhm. il a favorisé ses amis. Tu n'es pas forcément un Noumoutoudou, tu n'es pas forcément quelqu'un de compétent, mais il le créer la société. Mhm. hein, n'est le soumissionnel tu te souviens de l'histoire des des chantiers de Thiès. oui les trois quarts des gens à qui on avait attribué les les qui aïe marché c'était pas des gens compétents ils n'étaient même pas parce que xam nga banque yi soo man j'ai un marché de de coupe d'arbre mhm. mu ne looy liggéey nga ne ko tailleur là. mais du la jox xaalisam parce que la compétence n'est pas là hein est-ce que laajuñ def benn commission ou bien xawma ci réew mi marché bu commission moo koy xool ah. tout ñu ko mën mu jox leen ko ci lañ mais dara transparence mon fii ah, non eh, fii moom non, non, ouais. Les gens enrichissent leurs proches, hein, c'est tout. Dans le moyen ignoré. Tu donnes des marchés à des gens qui n'ont pas de compétences. Ah. Les gens qui liggéey bi du yegg nga naan sénégalais yi mënuñ non non y a des sénégalais qui savent travailler mais le jeu est faussé. da ne joxul da leen joxul da ah. soo ñëwee fekk ben nga bëgg monter nous tout l'affaire de la TNT là. tu mhm. ben sénégalais moo ko monter. Mhm. naka la mujjee dañ ko nangu ci loxo. waaw ah, c'est ça moi escaf. Ah, ak ban base. <laughs> c'est tout. indi coow lu bëri non non mais c'est comme ça c'est pour cela que nos nos hommes d'affaires là. pratiquement décision décision boobu mu ngi rey escaf. Ah, c'est ça waaw. parce que ñu ngi tribunal escaf jëloon na fi milliards investir ci TNT bi état bi seetaan ko. Ah, loolu la non les on les appels d'offres là les régimes qui se sont tous succédés da ngay am sa ben xarit wala sa ben mbokk mu créer société nga ne ko dina la ci jàppale mu jeex appel d'offre bu ñëw mu gagné ko mais mais même pas les compétences. ils n'en pas le mérite. mais alors ligue bi du yegg. waaw wax secteur euh, souveraineté am secteur bam importance mooy secteur textile. bu mhm. ñu Sénégal lu mu importer yéré par at. fëgg jaay kërëb kërëb ñew yéré yu jógee bitim réew nga am Tambacounda ma nga défar coton lan mo tax Sénégal mo relancer li nga xamante usine de fabrication de textiles au Sénégal ils ont ont créé des milliers et des milliers d'emplois. ah Sotiba saint Sotiba euh, ben c'était Mekwar. c'était un Marocain Moko a le groupe euh, Apollo TM Serigne le bu nag Tamsir Mbuub Nous sommes d'abord nous, ça a été une longue bataille devant les tribunaux. Euh, mais xam nga un exemple très simple biñ koy doog ñëw juste euh, année yooyu mooy bi mooy bi amee crise euh, en Gambie. Mhm. affaire ku koy Samba Sagna. Mhm. donc bi Sénégal intervenir dañ tëj frontières yi xam nga fraude bi Gambie la doon jógee. Mhm. Hmm? le chiffre d'affaires de la Sotiba trois années yooyu xaw ma trois ou quatre années. a grimpé. dafa passé de ay quatre cinq milliards à vingt deux milliards pour te dire à quel point la, fraude, mhm. tue les industries. locales. c'est ça. Mhm. ce n'est que ça. mais Sénégal si on répète les chiffres les chiffres bas y' a au moins 100 000 tailleurs au Sénégal Si on regarde l'uniforme à l'école mais que que à l'école créer industrie. xam lan mhm. tu c'est aussi bête que ça ah oui ñu jaay fëgg jaay lay mara di. jàkk fëgg jaay ñiy jaay fëgg jaay. mën nañu jaay yére sénégalais yi. c'est un commerce pour un autre. Mhm. Tu es dans, tu es dans le, la confection, hein? Mhm. de le commerce de d'habits accueil, dans mmh. l'habillement. Mhm. Mais soo gisul fëgg jaay di nga di nga commander ci ci Sénégalais yi ah def ko ci sa boutique c'est aussi simple donc dafa laaj organisation dafa laaj. Euh, liggéey bu xóot dafa laaj blouse blouse yu defar ci hôpitaux yi. te xam nga lan mooy même président yi seen yëre yi ñuy soli yi seen costume yooyu yëpp mun nañ ko xoolaat sol yëre africain yi defar fii mais nag il faut en entre temps bu ñu bëggee sax am ci dara développer davantage la culture de coton. non même si ñun on importe la matière première loolu c' est pas un problème mën nañ ko fi bayee tu as des paysans qui vont travailler Sous sous des ñun dem ba affaire ça règle le problème national et on commence à exporter parce que mhm. Alassane mhm. les tailleurs sénégalais mhm. sont partout dans le monde ah, ils sont forts ils sont forts et ils sont reconnus partout dans le monde c'est eux qui lancent la mode africaine donc ñun du affaire coton c'est avoir au début des années 60 quand on voulait faire du, du Sénégal la la plaque tournante de la civilisation noire. Mais solo au Sénégal, tu l'as mhm. Les coiffures, tu lances la mode à partir du Sénégal. Les mhm. pluies, même les cosmétiques que Tant tu l'as commencé à lancer des cosmétiques pour les peaux noires. Mhm. Mais nous, nous avons dit tout ça. Mais tout ça, nous avons dit Parce que la culture, genre, qui là quoi, il fantaisiste ça, ça, fait partie des choses qui ont fait tomber l'économie. Mhm. gis nañu aussi même sur le plan de des du ñu war a béy. Mhm. maanaam buy bi buy bu ñuy Sénégal. Mhm. usine nekk Thiès. dañ koy béy en poudre. di ko exporter di ko jaay ay Espagne di ko en France huile huile bi ñu koy pharmaceutiques, pharmaceutique. di ko defar ay yóbbu France. defar ko HT25 ñaar di ko jaayaat fii nit bien sûr pour la beauté des femmes. non man kay toog naa fii sax ba gis benn tubaab bu ñëw fii euh, naan fi jus de bouille dem France import ñu jaay ko ay bouille pratiquement c'est comme. nu mu Christophe Colomb qui a mm. découvert l'Amérique mm. il avait découvert le jus de bouille. man damay ree bay jooy non mais attends c'est que ñun nous, ñoo ñoo amul euh, ñoo faydalu lu ñu mom parce que les gens là c'est leur c'est à partir de leur culture qu'ils te vendent leur rêve qu'ils te vendent leur les habitudes alimentaires li ngay lek li ngay nan ak ñom ñoo la kay jaay parce que ils te font rêver ñun loolu yeb dañ koy am mais dañuy naan noonu ñun li ñu am dal vraiment waaw suñ la kay jaay ci mbuus bu sonn lañ la kay jaay ak yoy mais tu as pas envie de ça. am aussi euh, ay graines de citron nga kay defar aussi produit cosmétique de beauté cher cher on n'a pas assez travaillé sur d'abord nous, euh, xam li fi am et c'est foofu la école amee solo hmm. xam lan moo fi am n'importe qui koy exploiter l'artisanat commence par ça et ensuite tu, tu montes à l'industrie parce que la recherche va pousser à ça mais nous, on a préféré Qui euh, nous favoriser euh, limport export fii carte import export lañ doon kii nga nga yor sa benn table di indi ay fëgg jaay di indi ay dàll di indi ay frigidaire ak kenn xamul alors que on aurait pu nous développer notre savoir-faire dans ces domaines. Mhm. on l'a pas fait et là on est en train de le payer très cher. keroog mbir mbir laa gis da dëgg naa Chine li mu fay jar musiba naaru laay la boo ko defee en poudre de ko en sachet da ko jaay non seulement baax na ci yaram nit te ensuite nee nañu la. ñun kay euh, Alassane dañu sàggane suñu bopp ñun wax yëpp ay wuy souveraineté ak le seul vrai problème. Mhm. mooy ñun am dañ wala ko fonkuñu ko li am bëgg mais war prise de conscience. xam war concentré l'éducation nationale y a pas autre chose da nga koy ah. xam da nga d'où l'année, du leneen xam li fi ne jàng ko ba pare nag di dund y a pas autre chose. Madame, j'ai ko xale dès le bas âge. ah oui ci école ah yi ah oui case des tout-petits yooyu. oui oui ñu a pas autre chose. Mhm. Tel a jàng métier xam yow bante bi fi nek naka nga koy liggéeyee xam euh, coton bi parce qu'il y a des tisserands il y a toutes sortes de métiers traditionnels. chaîne de valeur mais ñun ñun euh, à force de.

waaw mais bon comme on a tout coulé te ñoom fraude à part qui bi fraude bi moo ko rey te fraude bi sénégalais yi ñoo ko doon def. est-ce qu'il est possible de renaître de faire renaître l'industrie sénégalaise. Ah, même bu fait couler yu ngand yi la mais industrie dafa développé wu. dafa miniaturisé wu. l'artisanat ah, naka artisanat il faut il faut il faut d'abord protéger euh, notre artisanat notre production locale lii fi li ñu fi war a d'autres n'ont ñu importer il faut faire ça et ça donner ken mais ça va forcer nous nga xam importateurs de ak mais ça va les forcer à financer la production locale parce que les nous commander pour commercialiser les les fi mais tant qu'on ne le fait pas euh, tu te dis waouh man dem de Chine moo mais loolu dafa laaj aussi un environnement économique bi ñu koy defar dafa laaj defar ay taxes yi xamante ne nit ñi dañ koy mën a supporter dafa laaj aménagement dafa laaj accompagnement dafa laaj un état qui dirige parce que Covid bu mu amee ba léegi dañoo gis l' état est revenu au cœur du développement l' état encadrer ubbi yoon yi defar yëf yi te Sénégal aussi. am na Covid bi de man li ma ci jàpp. Mhm. mooy on a encouragé la paresse. dañu ne toog leen parce que dëkk bi feebar bi ngi fiy daw bàyyi leen ñu jox leen xaalis comme nous, au Sénégal suñu suñu lebe ñu lebal ñu wuti xaliss 1000 milliards pour qui nit ñi tok seen kër ñu leen di ay subventions ay 100 francs non moi je trouve que ça a été un vrai problème c'était le moment de dire aux Sénégalais étant donné que fi mu nekk ni conteneurs yi ñi marchandises, indi marchandise sax amatul ci adina bi. c'est leen produire il fallait financer la production mais est-ce qu'on doit pas impliquer l'armée dans le développement du pays xam bu ñu waxee par armée nation développer arme bi génie militaire mun defar piste yi hein, xëy na aménage tool yi defar euh, kii xam nga encadrer nit ñi ci ñu de façon concrète. il faut militariser la société ça fait partie de ça c'est tout ay le savoir-faire des le génie militaire ak non, il faut, il faut former les Sénégalais, il faut militariser la société, c'est-à-dire même les valeurs de la République Hmm? man Fognan, ci ci armée bi a fils. même sur ces questions là je pense que l'armée doit être le modèle de doit former le modèle de citoyen ah. Hmm. davantage euh, pour euh, xal yoon yi defar réew aménager territoire yi xam nga xam nga man lan la xam nga lan tout ce qui concerne l'aménagement du territoire sous Sénégal par exemple de ne de bëgg a faire ay autoroute qui l'état sénégalais emprunte pour man mon corps exécuter les ben privé sénégalais nga am BTP tu proposes une autoroute à péage mmh. qui part de Tambacounda jusqu'à Dakar Tu yow yaa proposé hein? mmh. euh, yow tu travailles avec tes financements tu proposes un aménagement sous des états bi armée bi lañ ko comme ça les les coûts de les les coûts de d'exécution seront seront moindres parce que une entreprise euh, ça ça sa marge de de profit. absolument hein? mmh. l'armée ne cherche pas ça. surtout que tu as dans l'armée. et c'est de l'argent public. Mmh. parce que Sénégal moi l'ep Il indi moi qu'on a fay. Donc, armée exécutée. Surtout que a l'armée quand même des expertises extraordinaires, les gens qui sont très bien formés dans tous les domaines. Hein. Mais l'armée, même si elle n'a pas d'expert dans ce truc-là, elle peut signer un contrat avec un civil, ne connaît ni l'un ni l'autre, surveille exécution bi délai c'est tout mhm. c'est tout. waaw beneen information yi bu euh, rapport banque mondiale bu ñu rapport 2024 sur le climat et le développement au Sénégal. Mhm. alerte rouge bi ñu ci banque mondiale sud moo ko plus de 2 millions de Sénégalais pourraient sombrer dans la pauvreté d'ici 2050 55 des ménages sont sous le seuil de la pauvreté d'ici 2050 ñu érosion côtière bi ak sécheresse bi ñu responsable perte PIB 3,3 ba 9,4 ah, De ah façon projection la c'est-à-dire d'ici 2050, hmm. comme si nous avons fait une nañ de Voilà de vision 2050. <laughs> ah nous redresser la barre parce que ça ce sont des projections. maintenant de la Banque mondiale. voilà est-ce que les Sénégalais vont prendre les bonnes décisions pour éviter la catastrophe lolo c'est 2050, mais de toute façon euh, perspective c'est comme un sondage les léeg nga dóor sondage à un moment précis ñu ne la ah fii mu nekk doxul. Mhm. mais si tu prends les bonnes décisions à partir de contexte bi ak ah, xëy na euh, liñ ñu doon li doon ragal du am. les bonnes décisions de produire. produire pour que les gens ah, soient produire il faut remettre les Sénégalais au travail loolu amul euh, ba kii Alassane. Mm. man gisuma leneen lu dul liggéey mooy dindi il y a pas autre chose la dignité et la pauvreté kenn rek ko mën dindi mooy liggéey leneen luñ la wax dañ lay nax. mais il faut apprendre aussi aux gens comment travailler. ah, ah il faut d'abord savoir travailler bala ngay apprendre te doy yëngu. ah kat doy ah maa ngi seetaan moom non mais ñun d'abord on n'aime pas travailler ñun wut xaalis lañ bëgg. d'ailleurs c'est tout le sens de dem wuti xaalis. wut xaalis liggéeyoo. ah oui. ah non koy defee kon da ngay escroquer.

ñun option bi ñu am mooy monter ay dossier dem banque mondiale FMI kii jooy naan woy dañ bëgg a kii bon mënuñu defar tali bi mais seen entreprise yi ñooy ñëw defaral ñu ko ah eh, ça c'est pas du travail c'est chercher du de l'argent. te loolu bor la ay bor yu bëri la. c'est tout loolu la de on est à xaw ma ñaata seize mille ñaata ñun 16 mille. dix-huit mille quelques milliards voilà 18 huit mille milliards. te bépp Sénégalais ñoo ñoo koy fay de. bu baax suñu doom yi ñoo koy fay suñu impôt yi ñoo koy fay. non c'est c'est c'est tout l'esprit de de notre manière de de faire c'est-à-dire au lieu de produire par nous-mêmes, nous préférons emprunter des compétences étrangères. bi devons defar dëkk bi mu mel après nous ñu de di xoole ñeneen ñi di chômer non c'est ça nous notre option on n'aime pas travailler comment nous mettre au travail ah, hmm. c'est une culture Alassane c'est une culture Si tu as fi a njiit boo ne liggéey la au travail tu vas le sentir tout de suite c'est une question de modèle et de de de décision politique de volonté tam njiit bu ñemee liggéey danañ ko xam su on doit continuer comme on a toujours fait ah, c'est bien. parce que nous, le nouveau président ghanéen bu ñu fan bu premier mandat il a développé une zone industrielle en Ghana extraordinaire la zone de Tema. Mhm. d'ailleurs suñu euh, compatriote Pape Demba Thiam. donc mhm. nga nous avons une conception liggéey mhm. Et ça avait développé le Ghana. ah non non nous, on xam nga amon na même zone franche industrielle. Mm-hmm. Hmm? lañ ko mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Euh, on avait toute une zone industrielle côté Dakar transformation parce que toutes les matières premières devaient venir du truc Nous, nous transformons ko nous yi dañ koy exporter yi sur le marché. Mais tout ça, euh, pendant les années d'ajustement structurel, nouvelle politique industrielle, nouvelle politique agricole, tout s'est effondré. Banque usines, même, même euh, la fonction publique, on a dégraissé. Mais, maintenant, euh, on peut tirer une leçon de ce qu'on a fait. Tirer une leçon à une défense. Un, un État a une mémoire. Mm-hmm. Hmm? mais ñun notre problème c'est que képp ku ñëw remplacer ki la jiitu li ngay njëkk a def mooy effacer li mu def. archive non non mais euh, su dee yow da nga ñëw ne kii ma jiitu li mu def dara baaxu ci damay changer yoon ah keneen ki ki la wuutu tam ñoo ne ki fi nekkoon li mu def dara baaxu ci damay changer yoon mais on zigzag. Ah, dem bu ma déggee nouveau président Ghana bi mu naan euh, bu ñëwee li li li ko jiitu won nana foko bu fa nekkoon limu def lu bax da koy poursuivre. léegi xamante ne mu indi nag lu bees jox ko ci. xam nga xam nga diggante euh, Wad ak Macky Sall y a une continuité parce que li vision Wad, mom le Macky Sall continuer et donc il n'a pas eu de problème pour augmenter aller dans la même direction mais euh, par exemple Wad, limu mu fekk ci Abdou Diouf il a complètement changé. Mhm. Abdou Diouf limu fekk ci Senghor il a complètement changé et ça tu tu tournes en rond. c'est ça Le fait dafay mel dañuy def sur place ça. c'est ça dañuy tourner doo avancer ti c'est ça ben continuité bi jot am dal moy mhm. diggante wad ak Macky Sall. parce que ñoo bokkoon xëy infrastructure la politique d'infrastructure là, nga xamné Wad daf ko lancer Macky Sall continué ko lolu dal de de deux peut-être même 2004 2005 le commencer ba 2024 loolu moo ñu xaw may sax. ñu naan ay kooku ay mais ci Wade la hein? joggé Ela Wade la won non loolu tax ma la ci fofu ngay gissé une continuité de 20 ans ci li ci seen manière de faire mais diggante Abdou Diouf ak. Euh, sangor Senghor y a eu une cassure nette. et pourtant bu désengorisé ah Elaw Senghor la woon. ah dafa dafa dë dafa dëngal loss bi ba sangor dem mu ne ki lim fi doon def yëpp dara baaxu fi et ils ont complètement changé la direction du truc euh, bi muy ay ajustement structurel tëj internat yi nouvelle politique xaw banque yi mm-hmm. le temps que muy dellu si 98 99 waa waa dana ko salaamaaleykum mm-hmm. voilà mais fii li Sénégalais, yi gën a bëgg mu luy leen soxal instant bi nekk c'est la base avoir la base. c'est la base de la souveraineté. gis euh, Thomas Sankara amul nos ressources amul notre nos alliances stratégiques Avec nos partenariats quatre ans il a il a permis à au Burkina Faso d'être autosuffisant alimentaire mais lolo fayda la nous on en a largement les moyens amul mais Thomas Sanga dañ ko bàyyilu ci loolu de moo tax gars yi rey ko après de. non non non moom commencé woon na liggéey. non non moom yeneen yeneen problème la am ak euh, mooy kii rek ay la France la Côte d'Ivoire. Ah, ak ah, ñu as non non mais Burkina yi c'est-à-dire que euh, y a eu l'aspect politique politicien mais li li l'as li Burkina yi retenir de de lui. Uh-huh. <coughs> il a assuré les deux repas et un litre et demi d'eau pour chaque burkinabé.

Madame tey si on veut être un pays de loisirs. si mhm. on veut être un pays de de grandes conférences accueillies, mhm. c'est une option on nañ ci mhm. on veut être un pays de d'exportateur de produits finis industriels. c'est une autre option mën nañ ci mais nous, les gens qui nan, ñuy sol ak li ñuy fajook li ñuy jàng kenn waruñu ci fekk. la ci da ci parce que intérêt dafay bëri. parce que ima imagine toi Ibou boo boo ne woon tey dootoo importer da nga ci réew mi ñi xam ne dañu dund importation bi tu deviens aussi leur cible. non li ma wax Alassane. waaw sa lekk. waaw sa naan. waaw sa sol. Mhm. sa njàng. Mhm. sa yëfi bopp la. dëgg la waaw. léegi nag ñu nekk en interne la ci bàyyi ci loolu. Ah, eh. Parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Non, mais un État et un pouvoir. waaw c'est ça sa mission régalienne. ah waaw waaw su dee yow loolu mënoo sa fin de mandat yeggoo foofu considère que tu as échoué. waaw mais lobby yi nekk ci biir. di manœuvrer di di manœuvrer di di di amee milliards ci loolu. ñu ngay wax toog toog muy dox yooyu. Alassane ñooñu du la ci bàyyi. Alassane problème dañ koy réglé problème du ñak légui nak mm-hmm. so xamé ni li moy problème bi nga régler ko. Ibou Fall heure bu ñu seetoon jeex na. waaw d' gërëm naa la sant naa la. xëy euh, na dañu ñëwaat fii ci semaine bi ñu gën a xuusaat waxtaan. ci li xamante ne moom moo soxal réew mi. Mhm. Euh, wax góom bi ba ci biir génne ko teg ni xamante ne ñoo war def seen liggéey def ko parce que Sénégal kenn du ko développé du Sénégalais yi te liggéey rek la laaj. Ah. yéen doog jàmm ak salaam. Ousseynou Ndiaye moo nekkoon ci technique bi ak kii di euh, Charles Coulibaly ci vidéo bi ak Dami yéen doog jàmm.